xol daf koy aar ba lu bon bu ca dugg wax Maalik ibnu Dinaar nee na dama masoon di dox ci benn quartier dajanteeg ay nit ñu bëriwul ñett ci ñeent ñu yenu benn néew ma xam ne néew bi jullit la ndax ñu ko yor am na ñu ma ci xam ci jullit lañu ma topp ci ànd ñoom ba ñu ci bàmmeel yi bu ñu gasee ba suul néew bi jant baa ngi so wax ci jot ma julli timis ba noppi dem ci keru garab gi ndekete dama gëmmant ndax li ma sonn ma nelaw tuuti daal di gént gis malaayika yi ñaari malaayika wàcc malaayika yi njëkk mi daal di ma doon wax sànq bëti waa ji ko ci waa safara ni ko lu tax mu ne xool naa bëtam yi xool na lu bon li ñu tere lu araam lu bari mu ngi marqué ci gi te xeeñ ni mu ne ko bul gaaw te xoolal nopp yi xoolal nopp yi foon ne ko bind ko ci waa safara foon naa noppam yi déglu lu bon ak po ak i caaxaan ak yu dul dara rek moo ci nekk bind ko ci waa safara mu ne ko bul gaawantu fetal lan yi bu foon lan ñu ne ah wax naa ne bind ko ci waa safara lan ñun ñii ay caaxaan ak lu bon rek ko bul gaawantu loxo yi mu jóge te tànk yi ba yëpp bat mu ne ko taxawal xaaral man ma ñëw daal di ñëw li ak ci xol bi xar ko foon ko dal ne ko bindi ko ci waa àjjana ndax ngëm dëgg nekk ci xolam doo nelawul yàlla ak dara dafa sàggan rek ñu daal ni koy boole ci waa àjjana loolu moo tax ñu ne ida saluxa alqalbu saluxa aljasadu waxtu wu xol defaroo lépp defaroo cër yépp defaroo lépp lay defaroo ki ñuy topp itam su defaroo ñu koy topp defaroo ndax waxtaane ñu ko ba tàyyi junj nañ ko it ay yoon ilmul munasaba maanaam askanante roog yi askanante rek ñoo toppante ñooy ànd itam duñ ci sori